asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie duñ topp suñu tutoriel tey doo ñëwaat ci lu am solo mooy naka la ñuy def ba télécharger benn vidéo si YouTube tey mën nga ñëw si YouTube bi gis benn vidéo vidéo bi neex la trop fi nga nekk mën na amuñu fi nga ni léegi est-ce que du ma ko télécharger ma demee sama kër seetaan ko wala vidéo bi nga bëgg a garder sa sa téléphone wala sa machine léegi nooy def ba télécharger vidéo boobu. di wax ngeen abonné chaîne bi daal koy partagé léegi imaginons tey maanaam vidéo bii nii lañ bëgg télécharger mooy formation Python Django bi moo ñu neex wala bii wala vidéo bu mu mën a doon xaaral ma jël bii léegi voilà léegi damay bës si vidéo bi euh, léegi pour ma télécharger ko oh, xam dindi fond de kii bi ok pour ma télécharger ko nu may def damay copier lien bi bi si kaw léegi ma dem ci benn sit buñ naan fr point cform point net bu ma ñëwee marque fi kole léegi ñu xaar mu ñëw léegi boo collé da taxaw tuuti voilà ñëw na après nga bës télécharger voilà gis nga mu ngi nii di ñëw léegi ma def nii ñu xaar tuuti mu ñëw léegi mu ñëw ñu xaar tuuti di wax ngeen abonné ci bi daal koy partager tamit bu ngeen amee benn question bu jëm ci technologie yi lu mën a doon rek mën ngeen ko laaj si commentaire yi comme ni ngeen ko gisee mi ngi leen ñëw suuf ça dépend aussi sa gaawaayu connexion ok léegi accès na xam ubbi ko comme ni ñu ko gisee vidéo moo nekk nii télécharge na ko pare bu ma neexee ma seetaan ko bu ngeen bëggee ay firnde yu leer ndax ñëw na wala ñëwul le xaaral ma bés fii Wala gis nga muy ni ñëw na léegi daa ko télécharge te dox na bu baax mbokk yi doon seen Xarala Academy ma yaakaar ni jariñ ngeen vidéo bu baax maa leen di sant di leen gërëm merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel